One mais Assane fan nga demoon. dama nga yóbbu ko hôpital ñu palpé ko xool ndax violé wuñu ko. ku la xamul tamit dégg na. waaw yow xam nga mag ji pro bu tu me connais très bien parce que liggéey nañ du tu viens tu me parles de Wiz. Wiz nee naa la fu ma ko gis dama koy dóor bal. Assane su lëndëm lëndëm dama koy yëg sama xol waaye su nekkee si leeraay dama koy yëg sama yaram. fii laay toog du ma ñëwaat xam naa leen dañ may dóor yow ma brigade des voyous ma tëdd pet bi. alhamdulilahi rabbil alamin wax dëgg yàlla day li sa xaar bi li ma woon da am lu la réer lu bokk ci yow lii nga réeral day sa deret la waaye nag santaatal yàlla bu baax nekkoon na ci lëndëm waaye sunu borom def na ci tawféex ba mu ngi ci leer te insha allahu rabbi li la réer dina ñëwaat ba ci yow hmm. dina dellusiwaat say loxo dina ñëwaat ba ci samay loxo soobee yàlla ah man de loolu laa bëgg dëgg fa yàlla ndax man jaaxle naa trop sax muy sama doom ba seex la kii mooy Ousseynou ki réer moom mooy Assane waa lii koy defaralee. dafa doon loo xamante ne nii xëy ñu tëb tëb rek def ko lii am ndond la ci ñun du ñun yàlla sunu boroom la doomu aadama sunu boroom su lay may da koy jaar ci loxo doomu aadama kon man mënuma awma yàlla la duma leen a jox ma dërëm te li nga réer la ñëwaatul say loxo loolu de am naa ci confiance yow lii nga ma wax nii am naa ci confiance bu baax a baax a baax a baax kon nga ni sama lii ma réer la muy sama doom ji dina feeñ insha allahu rabbi te bis bu ñëwaatee say loxo jàppaat ci ñaari loxo xale yi andi leen ba fii ñii ay moomin lañ xamuñu dara sa doom yi seen tur da leen a jiitu fu nekkul ñoom sana tinja isele jigen du dem ba li jang amasal yow loy sourire <laughs> taximan dañu nango ñaw teman taximan yi te man lima ci metti moy ku ci gis police rek commencé di ñangal nga yaakar nek sen ñaway <laughs> ne dañu ragal police yi taximan yi ala du ngeen def jam sen papier dara mat sa Emak pasang dapur, siap ya, pasang rumah. <laughs> Oh, mau bodoh sih. Ah, teman ah? mau makan ah? Teman lah, nambah akcil mani mungkur furu furu. Ambil mungkur furu furu. Eh, aku sampai dulu deh biju bizu, partu partu. mana mani mungkur furu Mana malah nemu bayi ya? gue, mau tak menyusut sih ini? Tadi nggak ñëw seet si la. est-ce que xam nga ne man su ma la gisee sama corps vocal yëpp nii lay def nii. Hmm. du gis lu ci kanam ci kanam ci kanam ci kanam. kon jeex na ndax maa ngi nii egsi na <laughs> egsi nga de ah. egsi na melal na yaa ngi sa biir Sambour melal na yaa ngi sa biir nekk. wallaay la mettez-vous à l'aise. Ah, ah, ah. faites comme vous êtes c'est toi. <laughs> yow dootoo ko doon lekk mais ni nga may def maag yàlla rek ñoo ko xam yow dama lay gis rek sama noor yi koy taxaw sama corps vocal yi xool ci lay def. attends est-ce que xam nga nag benn affaire. sama buntu nekk à chaque fois b u o ñ ë w e da nga fa fekk pose pied xam nga k a m nga sama p am pose p i mu ngi nii kaay kaay kaay kaay. combe combe kaay ma gis la kor bu maa la ko ñaan kaay ma gis la waaw. <laughs> mën nga si meeku xaar ma ñëw maa ngi ñëw <laughs> mel na yaa sa biir nekk <laughs> d'accord. kanu doy yow. waaw kombe. yow digg bëccëg gii. waaw nga gel ne ko yol met ci bi. dafa am dara lu ci yow romb ak nga bàyyi xel commissaire. léegi yow ñuy romb ak di xool man la ma ci sama ngañ sama ngañ nan la ci nekkee yow yaay lijjanti ñiy romb ak ñiy xool. waaye yow commissaire chaque jour mi ngi naan fi ngeen di monter bu leen fay waxtaan bu leen fay euh, wax ak kenn. waaw mais ngeen sa gel dugal ko ci oto service bi. loolu commissaire ka la koy wax. ñun ñaar. commissaire yi yow la nekk sa supérieur mais man nekkul sama supérieur su ma taxawee ci kaw tali fii fii mën naa fi supérieur te yow man maa sa chef. man Salallah. chef. les chefs toujours en ordre kon man maa si supérieur man nga la bi muy joxe def ko. ok avancé à l'aise je ne suis pas méchant. wuy ma nag sama côté fenêtre nii bu fi kenn jàll dégg ndax bu chef de travail kenn bu ko xoole mettez-vous à l'aise <laughs> tapet li daf maa ragal <laughs> <laughs> luma ma neex laay def ci kër gi. ci kër gi ci kenn tëj ba ma ngi ñëw chéri waaw si loo ne maa ngi nii nam naa la de maa romb ah nam naa la trop maa ngi nii yow temps yi dama lay woo ba sonn mais ah kon xam naa est ce que nekkuma di ko chargé rek moo tax sama téléphone rek dëgg la kay loolu mais ça va ça va alhamdulilah yaa ngi doxal bu baax daal maa ngi nii gisoo da ngay génn nii waaw dama ànd ak sama copine tonton oh ok ana monsieur monsieur maa ngi fa mi si jàmm mais xam nga dara am ko léegi la sama diggante la. c'est ça. mais temps yi boo xam ne ñu koy nekkee nekk ci la. ah bon. billaay parfois day wàcc guddee ñëw keroog dem naa sax ba seen kii bi noonu ma laajte ñun ma dafay teel wàcc mais ba léegi ci guddee wàcc bu métti ma nekk man daal na fu nii.

man dinaa waxtaan ak sa waay. munoo waxtaan ak moom ba mu ñëwaat. Oh, d'accord je xam naa li ngay wax mais dinaa waxtaan ak moom li nga ma wax nii man mii jaaxal na ma trop trop parce que xam naa sa vraiment melul noonu mais su fekkee moo ko def aussi man je vais donc li ma lay li ma lay li ma lay ñaan mooy nga toog man dinaa fa su ma ñëwee dinaa waxtaan ak yow dinaa dem léegi sa waay su ma jógee suñu dem léegi waxtaan ak moom mais daal dalal.

moom moo lay jiril ay gal kañ ngay bañ am confiance si góor benn góor jaratul am confiance gis nga kii ñi nga xamante ni bii dañoo am jabar moom moo yor appartement bi nga xam ne fa la ñuy yóbbu seen gal yi kii yaa ko xamul man dama koo xam bii rek biti xam nga yow demoo oh. demoo dikkoo man maay daalu Cees maay dem maay dikk maa xam lépp te dinaa la indil preuve boo xam ne sa jëkkër day doxaan man maa la wax li sa jëkkër a dàq doxaan ci àdduna te kii ya ko ci dugal kii dama koo xam moo tax mu nuyu ma avancé yow nag tëddal di nelaw mel ni xale bu ndaw lu ma la wax doo ko gëm après ngay gis résultat milu bisa bracket bi mo mo so ba sere ni no mo ni na men naturellement sa bracket fi play ube ko ah, non yo kombe fune ngay summee ko yow fune même bi ci biir oto sax fune ngay summee ko yàlla xam na ne man dem naa sa kër ba taay waaye mosuma faa summee ko billahi mosuma faa summee damay dugg yow sañ ngaa summee ko sama kër non non manam laa xool rek silence dinaa la licencier man lan laa def yow ci lotere lan laa def ci lotere dinaa la licencier brigade terminus des voyous tu vas payer le pot waaw mais mais mais silence comme c'est la MV c'est la mauvaise volonté tu vas payer les pauvres cassés quand au la regarde, ton voyou tu vas voir silence ah! Oui fait. non non non eh, eh. non. Regarde, non mu ne kenn nekkul. recule encore mau caga moom laa jàppoon fii dugal ko fii benn caga la boo xam ne amul sa carte man maa ko mau man maa. fombe kii kan la. kii benn caga la bu ma jàpp kau ci koñ fi amuloon carte dañ mau wax ne amuloon carte loolu moo tax ma téye ko fii nii pour arrêté ko fii nii. yow mën ngay wax caga yow. bébé yow yow yow kon kay tubaab nan ko bébé yow ana caga di sudul noonu. man la laa fi mën na lu bi sa braquette bi xamoo la nga def non moom moo dëgër boobu moom moo ubbi moom mooy moom sa moom saa def après di nga def demande d'explication yow wàccal oto bi mais demande ma xamoo man may kan yow yow yow wàccal yow boo yow kii wax nga ko kañ la man ni nga wàcc laa wàccal sa gis ngeen nii dañuy def nii dañoo gàndal làmmiñ ba nga xamante ne seet ñii loo leen wax dañuy toll. yow amul dara yow lu ñu dëjën amul dara yow lu ñu dëjën. kii taxaw moo tax nga lépp lépp dina leer yaa gën a dof yow lu yàlla sax yaa ci gën a dof yow. yow dimbali ma yow man ngay traité caga. yow kii li ma koy expliqué yow man ngay traité caga. ni ma war a xam ne kii mooy sama supérieur sama supérieur la. may ma sama jàmm loolu génn ma. yow xool damay rey sa damay rey man dama la faale wu man ngay wax caga man li ma ko namm di nga ko gëse gis yow yow looy gëj a bu loxo laajee di nga wax nga ne. yow yaa gën a manqué yow ñëpp nga mel ne boolu farine nii yow yaa gën a manqué ñëpp xool sa wang bu débordé bi xoolal wangam bu débordé bi yow sa sili baa ngi feeñ eh sonatuma yow ñàkk fayda booy bëgg de dee li ma def fi mos doy la jàppale mar la ba nga yàqu ni fi mu ni nii laal sa kii sa laal yooyu noonu yëpp bay bëgg a dee yow amoo dara looy wax lu taxaw bi ne naka yaa ñu gën a ñaaw fay ñoom yow si biir oto laa ko defee yow ci biir oto ci biir oto bi yow mal ma ne la bon bay bëgg dof yi mu def ni tamit ne nekk supérieur ni doo tax man tamit man maa gën a ñàkk jom man ñëpp man sama demee man lan lan lan lan lan lan eh jakarta jakarta yow ni ngay dawee eh eh taxawal yóbbu ni ngay dawee dafa ëpp ni ngay dawee ni kenn du ko dawee taxawal taxawal yow ni bu ne am na kuy jooy waxtu bu ne am na kuy re am na ñu xiif am na ku lekk bëggee ku mer bëggiif ñaar ñuy dund lu àdduna benn bés la ni lépp mbébét la wërsëg kër la am ak ñàkk ànd àdduna ngi nii bëri couleur mbégteeg douleur àdduna ngi nii bëri malheur ak i bonheur samay douleur jeu de couleur àdduna ngi nii bëri couleur mbégteeg douleur àdduna ngi nii bëri malheur